salaamaaleykum internet Feeling Dakar dal leen ak jàmm les actualités les plus marquantes de la semaine la ñëw ak yéen dañ koy uh, njëkkee nag ak coow li nga xamante ni daal di wër Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moo di Adji Sarr dañ ci uh, teewlu ak ki nga xamante ni moo di uh, sama naataango Fatou Ndoye salaamaaleykum internet Feeling Dakar ñu tàmbalee buzz de la semaine ci li nga xam ne mooy ñoŋal Ousmane Sonko ak Adji Sarr jëli kàddu yu li nga xam ne maître El Hadj moom jot na ko ci yëkkati moom nag gisoon nañ ko fële ci balance mu yëkkati ne moom mooy doon ki nga xam ne mooy avocat Adji Sarr ba tax na tamit moom dafa gis ay traitement de partisan yi nga xam ne dafa nekk autour de Sonko moo tax mu sàngaafu li nga xam ne mooy défense su Adji Sarr ba tey tamit nemmeekuwaat nañ ko fële ci euh, TFM ci émission boobu ñuy duppee jàkkaarloo moom mu ngaañ ngaañ yenn kàddu yi nga xam ne suñu naataango yi Pape Alé Niang ak ki nga xam ne mooy Ahmed Aïdara génnee nañ ko amal ay euh, révélation si euh, procès verbaux yooyu moom nag nee na lépp lu ci rusati rek dëppoowul ak yoon ba tax na tamit ñaawlu na li nga xam ne révélation yi kii di Ahmed Aïdara ak Pape Alé Niang def nañ ko ci procès verbaux yooyu dara dëppoo ci ak yoon si noonee tax la wax ne dina leen porter plainte ba tey tamit ñu desandi ci affaire Ousmane Sonko ak Adji Sarr di kàddu yi nga xam ne Ahmed Khalifa Niass yëkkati na ko fële ci Walfadjri Walfadjri moom nag di xamal ne yaakaaru ne viol am na si diggante ñaar ñooñu kii di uh, Ousmane Sonko ak Adji Sarr moom tamit uh, nee na 80 pour cent liste MFDC soo demee ci Pastef di nga ko fa fekk moom nag nee na wax jooju moom la engagé ba tamit yëkkati na fa ay kàddu di jëmale ci li nga xam ne mooy uh, role bi nga xam ne kii di Ousmane Sonko waroon na ko joué ci histoire boobu ñu nemmeeku depuis ay décennies fële ci Casamance Ousmane Sonko état bi da ko waroon jël comme ki nga xam ne mooy pacificateur entre MFDC ak li nga xam ne mooy état du Sénégal. ba tey rek ñu desandi ak coowul Ousmane Sonko Adji Sarr jëli kàddu yi nga xam ne Moustapha jotoon na ko yëkkati fële ci nga xam ne mooy euh, 2STV moom nag nee na kii di euh, Ousmane Sonko bu mu xam ne dafa feebaram feebar bi toll na ko fii dafa waroon dem seeti benn kinésithérapeute moo tax moo gën muy dem fi xam ne mooy salon de yi nga xam ne ay jigéen yu rafet rek ñoo fa nekk te ñoom amuñu benn expertise ci li nga xam ne mooy euh, feebar boobu dal ko fa ba tey tamit moom ñaarlu na li nga xam ne xale Ousmane sonk yi génn nañ ko jàmmaarloo ak askan bi jàmmaarloo ak tamit ñi nga xam ne ñooy takk der yi ba tey tamit kii di Moustapha Diakhaté nee na kii di Ousmane Sonko moom am na couverture boo xam ne assemblée nationale jagle na ko à hauteur de 80 pour cent looloo waroon tamit mu mun a dem fi nga xam ne ñooy spécialiste yi ginnaaw gis-gisam nag moom yëkkati na ay cadre yu salfaañoo jëmale ko ci ñi nga xam ne mooy euh, waajuru Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ci ginnaaw noonu am ay autorité yu génn ñaawlu cadre yu nga xam ne moom yëkkati na ko moom tamit démb gis nañ ko mu génn def ay révélation di baalu àq ñi nga xam ne wax ji moom métti na leen lekk lu ñogal euh, Ousmane Sonko ak Adji Sarr gisoon nañu tamit kii di maître Abdoulaye Wade ancien président de la République bu Sénégal moom mu génn àddu ci di xamal ne Ousmane Sonko moom amul expérience moo ko manqué moo tax mu dugg ci kàmb bi nga xam ne mouvance présidentielle bi ñoom euh, dugal nañ ko ci ba pare moom tamit nee na kii di Ousmane Sonko tamit rafetluwul li nga xam ne moom bëgg nañ ko ko teg di lever immunité parlementaire am ba tamit kii di maître Abdoulaye Wade moom tamit nee na ñaawlu na li nga xam ne moom la mouvance présidentielle bi di éliminer ñi li nga xam ne ñooy ñooy adversaire politique am nemmeeku nañu tamit kii di Ousmane Sonko moom démb demoon na fële ci université Cheikh Anta gis nañu mbooloo bu taq bu ko topp ba tey tamit ñuy desandi ci mbir yi yëkkati kàddu yi nga xam ne nemmeeku nañ ko woon ci euh, député opposition bi ñoom di génn di ñaawlu yi nga xam ne mooy njuuj njaaj ñu nemmeeku fële ci commission adopte ci wàlla kii di euh, Abdoulaye Wilane moom moo bokk ci député majoritaire bi moom nag nee na ñii di député opposition bi ñoom nag dañuy jouer théâtre rek parce que lu ñuy wax ñoom teguñu ko fenn kàddu ñuy yëkkati méngoowul dara ak dossier yi nga xam ne ñoom teg nañ ko seen kanam parce que am na ñuy wax na contre plainte contre x lañ leen indil moom nag nee na dossier yi ñu am kii di seen naataango Ousmane Sonko moo ci nekk ñu desandi ci coowlu Ousmane Sonko ak Adji Sarr gisoon nañu tamit ki ñii di avocat Ousmane Sonko ñoom génn génnoon nañu di dànkaanfu ki nga xam ne mooy seen naataango maître El Hadj Diouf nee na maître El Hadj Diouf kàddu yu muy yëkkati ci kanamu presse bi dëppwul yoon. sinon nee ne mekk nañu kii di Adji Sarr ak deuxième masseuse bi fële ci division de recherche enquêteurs yi déglu nañ leen kii di Adji Sarr nag moom gën na dugal président Ousmane Sonko moom nee na président Ousmane Sonko suñu woon di sekk ak moom da koy proposé li nga xam ne mooy pilule yi ba tey tamit kii di Adji Sarr nee moom moo wax deuxième massage bi masseuse bi mu génn fi nga xam ne mooy salle de bi parce que président Ousmane Sonko moo ko def signe si noonee tamit euh, deuxième masseuse bi nee na moom kii di aji Sarr tamit euh, moo ko proposé woon cent mille francs pour mu mën a xam mu noppi euh, mun a nekk à sa faveur. si lu ñeewal Ousmane Sonko ak Adji saax ñoo ngi koy jeexale ñi nga xam ne mooy levée immunité parlementaire du député boobu di Ousmane Sonko gis nañu. procédure bi enclenché nañ ko si semaine bële fële si assemblée nationale commission ad hoc bi nga xam ne moo war a saytu fee moom tamit euh, teg nañ ko mais gis nañ ci ay wax yu sew parce que dañu bëggoon kii di député Fatou Ndiaye présenté euh, député non aligné te dañu ràññee député Fatou Ndiaye fële ci député réew mi ba tax na kii di député Cheikh Bamba Dièye moom mujjee na ko wuutu ba tey tamit gis nañu gedd bi nga xam ne euh, Moustapha Guirassy moom gedd na ko moom mi nekkoon vice président commission boobee si ginnaaw loolu tamit gis nañu kii di Ousmane Sonko moom tànn kii di soxna ay Mbodj pour mu nekk avocatam fële ci commission adopte ak ci plénière mu ngi noonu euh, coowal aji saax ak ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko la woon kii di Fatou nag moom moo doon def développement bi dañuy daal di ñëw ci li nga xamante ni moom moo di dernière partie bi ñu jagleel ko wàllum euh, people dañ koy euh, dooree nag ak ki nga xamante ni moom moo di ngoo Ngoola Diva moom nag artiste chanteuse la moom dafa jóge France dem fi nga xamante ni moo di bi moom nag ci noonee Viviane moom da doon tëgg soirée ci bi ci noonee sax moom Ngoola Diva. gannaaw ba nga xamante ne nii ñuy faree ci organisation bi ñoom ñoo ko daal di invité woon ngir mu ñëw euh, yéeg sur scène waaye nag ba mu ñëwee rek dafa daal di gisante ak ki nga xamante ni moo di promoteur bi ci noonee sax promoteur bi daal di koy xamal rek ni que moom dafa daal di yéex jot euh, invitation am waaye nag ndax bu day daal di dugg ci biir mu duggee ci biir rek euh, mu ngi génnaat régler situation bi ci noonee nag moom Ngoola Diva mu ngi xamle rek ni que moom boobaa la gëj gis promoteur boobule tax na nag moom waa Feeling Dakar daal di war nañ koy dalal dañuy daal di seetaan benn extrait rek ci kàddu yi nga xamante ne nii moom Ngoola Diva fa di woon na koy yëkkati. ki ma fa fekk Gàmbi la dëkk xam na Lamarana mu jël numéro boobu composé ko ci téléphone am mu génnee Lamarana muy deuxième numéro Lamarana bu mu fay portable bi. ah woo ko jot boîte vocale d'accord. ñun duñ ay duñ ay naxa naxa xam nañ nu mu demee donc bi loolu amee déjà moi je commencé naa am doute mm-hmm. léegi après ma topp action bi rek daal di boowaat euh, ko ne ko jotuma ko mm-hmm. mu ne ma xawma lan kiiwul ñu bàyyi noonu ma ne gars yi solu leen ñu dem ñu solu ñu dem bi ñu demee euh, Ketchup wàcc oto bi bi mu wàccee daal di ñëw nuyoo sama gars yi ne ngeen def et tout ça daal di ne waaw dama ànd ak benn artiste mu ngi fees dama ànd ak sama artiste la wax dafa ne dama ànd ak sama artiste waaw léegi mu ngi ne euh, dama bëggoon gis ñi organiser pour ñu xam nu defee kooku ne ko bal bala nga fiy dugg dangay ngay fay mm-hmm. après man suma ba tey sama sama xel bi mu ngi mu ngi dem ci li nga xamante ni moom laa xalaat <laughs> Euh, ketchup bu ko tàngal foofu et tout ne ko commencé ma ne ko mu ne ko man kenn indi ma fi. sama artiste bi laa àndal moom ma fi indi. Mhm. et tout léegi affaire def commencé tàng foofu après ñu ne kii ndaw si ñëw ne ko lan la moom Aïda mu ñëwee ne ko lan la mu ne ko ngoone laa àndal et tout mu ngi fee pour def première partie bi ndaw si ñëw ba jàkkaarloog man xool ma ma xool ko. mu ne ma boo demee premier parti boobu man la ma daan benn yoon la ma ko wax de waxaatuma ko mu ngi noonu Ngoola Diva la woon euh, waa Feeling Dakar daal di woon na koy euh, dalal mu yëkkati euh, yooyu la kàddu moom sax bis boobu ko jaraloon mu daal di jël ki nga xamante ni moo di Ketchup ngir mu sinabal ko Sénégal ba Gambie lépp loo xamante ne nii daal na koy def rek seen Ketchup daal di koy sinab waaye nag moom mujjewul yéeg ci scène bi nga xamante ne nii Viviane ci la doon wéy loolu nag mu daal di nekkoon polémique bu ñu jógee foofu dañuy daal di wax ci beneen polémique boo xamante ne nii daal dina ñeel faux mariage kii kii di Ngoné Ndiaye Géwal ak ki nga xamante ni moom moo di Chon ci di xëy rek gis ni di Ngoné Ndiaye Géwal ak Chon eh, eh, ku ci nekk di si àddu waaye nag mariage boobee nekk na la nga xamante ni nii moo di faux mariage ndax nag ci information yoo xamante ni daal nañ koy jot rek mariage boobu noonu benn téléfilm moom moo waxaloon ñu daal di koy eh, joué dañuy daal wax ci ki nga xamante moom moo di Wally Ballago Seck moom nag jamono yi bi mu ngi foofu ca Gambie war fa tëgg ñaari fan 18 19 ci noonee sax moom Wally Ballago Seck lii de départ am yëpp daal dinañ koy wone moom sax daal dina ànd uh, Gambie ki nga xamante ni moo di xaritam di njoletaal dañuy daal di teewlu boobule vidéo dañuy desandi ci li nga xamante ni moo di Wally Ballago Seck ak Gambie boobule kii di Niang Kharagne Lo nag moom tamit da doon def li nga xamante ni moo di anniversaire am tax nag dafa daal di tombé ak le ko daal di woy sur di ko wan rek ni que moom Niang Kharagne Lo bokk na ci xaritu démbam yi. ci ki nga xamante ni moo di Coumba Gawlo Seck moom nag dañ ko dalaloon fi nga xamante ni moo di ci émission bi di invité d'honneur Pape Cheikh Diallo di ko def ci télévision Futurs Médias moom nag Coumba Gawlo Seck gannaaw ba mu amee problème mu voix ci noonee sax moom euh, dafa daal di euh, tuur ay rongoñ di wax rek ni que moom su déggee voix am dafay daal di jooy waaye nag moom ci li nga xamante ni moo di explication wu lu ñeel baatam boobu lu tax mu dem moom sax euh, xolam dafa daal di fees ci noonee dañuy daal di teewlu boobule vidéo. Il m'arrive de craquer comme c'est le cas mm-hmm. en parce que sama son voix moo ma neexul quoi. voilà <laughs> su ma <laughs> le son de ma voix je suis triste. ça va aller ça va aller. oui ça va aller. Oh. actualité people yi nag dañ koy jeexale ak ki nga xamante ni moo di Viviane ak Saint-Valentin bi moom nag Viviane gis nañ ni que saint bi mu ngi ko passé foofu ca Gambie dañuy daal di seetaan rek boobu la vidéo. yaa ko gën xol man pambaay maa ko wax ba nit weddi ko ma gita ngaas koog moom yal na sa jàmm yàgg sama waa ji kenn du yow yaa ko gën xol man pambaay maa ko wax ba nit weddi ko ma gita ngaas koog moom yal na sa jàmm yàgg sama waa ji internautes yi ñu doon bàyyi xel fii ci Feeling Dakar cant ak gërëm ñenn leen lii lañ leen andiloon ci ay actualité yoo xamante ni moo gënoon a fës ci biir semaine bi ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje semaine prochaine ak yeneen i actualité